en tant que DG lu mu def dafa jafe parce que mënoon na ne Thiès Prestige rek laa yam mais dafa dimbali waa koñ bi dimbali waale boppam parce que ay oto tam dañ fiy jaar oto ñi yeneen oto dem dañ fiy jaar te lii lu jafele si doomu aadama yi léegi daal loolu nag nga ngi siy ngërëm di ko si sant aussi te yàlla na yàlla def li mu sol suñu ni si entreprise am lu raw njortam mu dem ba nekk ay ay entreprise yu mag a mag a mag te incha allahu rabi si dee nii la commencé di dem yalla dina ko may ndam ci biir quartier bi jërëjëf. damaa sama xel dal sama xol sedd parce que lu melni ni waa gox dañ ka soxla en tant que mon ko ba genn gox nek yaay daara nga que dum yaa dum na guleet yu du guleet ci koñ bi de da bu ñu commencé ndox mu muy commencé taw mu taa Pape dum yaa mo a indi latara bu xonk commencé di defar nit na buy defar bo xamul da nga wara a noppi sa ba du xol ba nga xam ki nga xam ne daa jël dund di defar nga xam lu muy defar lan la par bu yaa jugul pour yàq bu ñu ko bàyyi woon day defar nga daa yéeneem ak xolam di taw boo defal gadaron parce que man damay jaay ndékki fu ma jaayee ndékki laa toog gis waxu la kenn am sutura am bàmmeelu biir du si a xool nit kon kooku buy def lu baax du tàggoo moo tax man bu ma gisee collecteur bi ak camion yi ñëw di sotti la tara bi ma daw ñëw ci man ne ko Pape man de kontaan naa i dumb parce que Ah, Pape Doumbia alaki sara parce que yow bëri kees la booy def doo tàggoo. kereeg waa télé ñoo fi ñëw man rek lu ma lu may wax ku dee sa bàmmeel la buñ fi ñëwee waa waa kàcce bi ñoom tonton Kita ak ñi nga xam ne ñoo yore affaire jumaa ji ñoom ñoo génn ànd ak waa télé ñu ñëw mais ñun télé bi lañ jóge am ñun télé bi lañu tiitaroo Pape Doumbia la ñu def ci gox bi ñun gis nañ ko ba ci néegu yàlla mu fi def ñun gis nañ ko parce que lii bu ko defee démb tàgguwul kenn lu baax ay yéenam lay motali.

parce que moom moo ñuy gestu bu ñu sonnee moom la bu ñu bu ñu manqué dara moom la vraiment ñu ngi koy félicité ci lu muy def vraiment ne est très très vraiment content nañ trop man je suis infirmière euh, maa ngi liggéey hôpital saint de Dieu xam naa bu baax yoo lu muy def ci doomu aadama kon nag bu ma gisee lii man maa fi doo maa fi njëkk a taxaw ne vraiment Mati dañu war a jóg wax mais kere bu waa Sud FM ñëwee fii ñuy wax dama ne lu tax Pape Pape ñëwul

na yëngatu genn nak ñu xam ko parce que ñu bëre xamuñu ko na genn si man xam naa jabaram parce que on travaille ensemble mais mom dafa wara genn comme ça nit ñi xam ko bu genné rek am lu mu bëgg wa ñu ngi koy gërëm di koy sant waaw jé seen ñu ngi leen si baax waaw euh, accueil bi ya def nak wax dëgg fa la accueil bu rafet la quoi parce que fii Euh, seetlu nañ temps yi yëpp wala boog ça fait des années nga xam ne saa yu tawee rek fii day am ndox waa ndox mu bëri te ndox mi day sonal dëkkandoo yi te ndox mi it bu taayee feebar yu nekk mën na koo indi léegi moom mu daal di gis ni fii nii sa normal que gars yi daal koy euh, defar def ci euh, soit ay xeer wala leneen loo xam ni mën na tax bu ndox mi ñëwee du fi taxaw Cheikh Savère mairie bi mu ngi fi gis na ko mais defaru ko moom nag Doumbouya mu nekk koo xam ne wax dëgg fa yàlla ku bëgg ah, nag fi mu nekk la nekkul nii nag telem bi dafay nekk rek moo tax mu defar ko déedéet xoolul loolu may def ne lii kat c'est normal que en tant que citoyen war naa ko mun defar léegi mu daat fii def nag euh, nag ay xeer wax dëgg fa yàlla dafa nekk loo xam ni nag lu gars yi rafetlu la wax fa yàlla rafetlu nañ ko lool waaw parce que fii nii sax ndox daaw fi taa parce que ñun ñi fi njëkk a dëkk ci lan bokk mais këriñ fi tabax kër yi xam moom lañ fi tabax moom moo tax léegi ndox mi dematu bu ñëwee day takk diggu yoon bi léegi bu ko defee nag euh, ndox mi du mën dem fenn su ko defee euh, nag dafay sonal nag ñi fi ko quoi waaw yaakaar nañ ko quoi parce que yaakaar nañ ko yaakaar nañ parce que comme que ndox mi fi la doon jaar bu mu fi dem direct euh, taliba bu ko defee dina jaar ci canal gi daal demee woonam waaw loolu moom euh, na am nañ ci yaakaar quoi waaw. waaw sunu moom wax dëgg fa yàlla sedd na ci lool moom bu defoon lii sax sunu xol yàgg naa sedd ci moom parce que fii nii euh, fii nii ñëpp xam na ni mu meloon yoon bi ni mu meloon moom mais moom fi njëkk a def na ay xeeru xonk fii jëlee ko ci ba fii yëpp parce que dafa xamoon ni fii naak naa ni yoon bi meloon

ku mel nii ñëw def lu mel ni xam dañ koy sant mënuñu def leneen loolu di ko sant parce que defoon na fi lu mel ni mais gars yi dañ ko interprété mal donc mooy loolu daal mais daal dañuy sant rek di ko wax euh, di ko jaay jëfal bu baax naan naan ko euh, na gën a yokk parce que fii ñun ñëpp ñoo ko bokk ngent bi moom gars yi ñun ñëpp ñoo ko bokk na mel ni rek benn borom kër bu jógee feere ñëw sotti fi xeer xam moom ñëwul rek ne yàcc quoi dafa ñëw xam bokk ci activité jeunes yi xam lu jeunes yi di defar woo ko moom day soutenir gars yi xam nga di jàppale nit ñi donc ñu mënul lu di ko sant di ko gërëm mais lii dañ ko soxla woon bu baax lii moom soxla woon nañ parce que à chaque fois ñun man boog bu ñu fi dëkkee ba léegi ndox mi à chaque fois saa yu ñëwee fi lay toog à chaque fois saa yu ndox mi ñëwee rek fi lay waaw loolu c'est vrai parce que ngent fii

après bu élection yi jeexee rek xam nga doo leen gisaat donc moom mi xam moom moo dëkk ci koñ bi ñëw defal ñu li ñu mënuñ dalu di ko sant di ko gërëm di ko ne jaay jëfal xam nga di ko nii na gën a góorgóorlu. waaw loolu moom dinaa ci wax ndax damaa wax ne xanaa yéeneen bii dégg ma ëpp na ndax lii moom moo jëkkoon ne dégg maam def ci latérite doon ci fay un million cinq cent et quelque. dégg nga bëggoon a defar waaye bi ñu sottee latérite bi dégg nga ba pare nit ñi xam nga poussière bi waa am ci waa koñ bi ñuy wax naan seen njaboot geeg poussière beeg nangam ak nangam loolu taxoon mu arrêté woon ko waaye moom da ko naroon defar ba pare goudronné ko Pape Doumbia dañ ko war a ñaanal rek yàlla may ko gudd fan ak wér. gis nga léegi bi may ñëw nii maa ngi ñëw waaye gis nga camion bi nga xam ne bi may romb dégg nga ndox mi ci yoon wëtt tali bi gis nga sama yére bi ni mu ko taxalee te loolu xam nga ne rafetut. te yoon bi ku bëgg a man bu ma daan jaar sax léeg-léeg dama daan wiiri bu ndox mi amee waaye nag maa ngi ñaanal ko dégg maam yàlla guddal fanam wéral ko yow mi nga xam ne dégg mooy sekk ndaanaan dégg nga ànd ak Moussa Mbaye ak waa Prestige yëpp dégg maa leen sant di leen gërëm di wax ne nag yàlla na yàlla dolli jàmm ak wér ak kattan dégg nga ndax Pape kenn mënu ko fay Pape am na yar am na teggin am na jom te aqrabu awlaa ko gën a jege moo gën a yey moom nag ñëpp la defal nag waaye ñu gën a jege nag dégg ma lu mu mën rek defal na leen ko kon waa Thiès waa waxatu rawatina nag waa Ngent rawatina dégg station dégg maam Thiali dégg mais Sénégal gépp dégg maam war nañ koo ñaanal dégg maam yàlla gën koo yokk dégg maam wërsëgam ndax yéeneem rëy na xanaa kontaan si rek di ko ñaanal yàlla mi am fay yàlla na ko yàlla fay lépp lu mu yóot yàlla na ko yomb ndax ñun ay boroomi njaboot lañ te dañoo nekk si koñ bi wóoru suñuy doom dugg si daanu wala ñu jëlee si feebar moom mu yore xolam bu rafet yàlla may ko xol bu rafet boo xam ne mën naa gis lii ba indi ñu ko defaral ñoo ngi ko si sant di ko si gërëm lépp lum bëgg yàlla na ko yomb yàlla guddal fanam wéral ay cëram lépp lum mu mu jot ko si barke Seydina Muhammad xanaa xëyee kontaan rek kontaan nañ trop wax dëgg yàlla di ko ñaanal yàlla lii mu def fii ci sunu koñ bi yàlla na ko def ci kees yëpp yàlla yokk ko ba mu yëg ko bu baax a baax a baax dañoo kontaan kontaan nañ torop di ko ñaanal yàlla rek ndax koñ bi yàgg na fi lii di ñun dañoo yàgg a sonn yàgg dund ci lii ndox mi da daan dugg ba ci biir kër yi yëpp da daan dugg ci biir kër yi ñuy ngacc guddi di ñett bëccëg sunu dëkkandoo bii nag moom da daan def lu ne ay xeer ak lu ne def na ko ci ay këram ndax ndox mi moom moom wax dëgg yàlla lim ñu defal fii kontaan nañ waaw sunu xol sedd na ci lool lool lool lool moo tax nag ku defar sunu dëkk bii ñu ànd ak yow ku defarul sunu dëkk bi ñu bale fi ndax ñu sunu gox bii lañ am kuñ ko jàppale ñu jàppale la kuñ ko jàppale woon nag ñu bàyyi la ndax sunu gox bi lañ am sunu xale yi lañ am ak ñun ñii nga xam ne ay mag lañu moom lañ am ñoo ngi ci biir. takk nañ ci rip ndax si koñ bi la bokk. ci koñ bi lañ dëkk. dañ koy jàppale ba mu neex. ñun ñoo ngi ci biir ah. waaw monsieur Seck Ndana sama xol dafa sedd lool bilaay walaay sedd na trop trop bilaay di kontaan si Pape Doumbia rek di ko ñaanal fu mu bëgg am moo ko xam yàlla na ko suñu borom àggale fu kawee njottam si barke Seexul Xadim waaw ndax man xam naa ko wér a wér dama koy liggéeyal xam naa ko xam naa yéeneem ci doomu aadama yi bëggul sax nit ko am problème yaa ngi dégg boo ñëwee ko man damaa bëgg a liggéey wala damaa bëgg a nangam danaa leen ñun ñëpp ay jeunes lañ faw ñu jàppalante àdduna amul solo kon ñun dañ koy ñaanal fu mu bëgg a àgg àgg moo xam yàlla su borom àggale si barke Seexul Xadim yàlla may ko wér ak wérle ba mu lim na ma liggéey lépp su borom kàttanal ko ba mu may ko télévision national si barke Cheikh Khadim waaw waaw waaw Seck Ndanane loolu man xam naa dara ndax 98 ba léegi yaakaar naa su ma juumul maa ngi ci ngent fii nii yàgg naa fi comprendre xamna situation yi ni dund bu nawet amé fi ci gox bi ni xamna naa dara man ndax man fi la ma fekk fi la jangé médié fi la am atelier kon lool yàgg na du ati do ati ndaw yàgg naa fi lool wax deug yalla mais li ngay wax ni lool wër la ndax 98 ba légui du ben fan du benat ay ati at la te problème mu ndox ñun ngeen dañ ko am fi ni kon Pape ya bu jigé ni di def ay djégo dañ koy ñaanal su borom katanal ko ba bu jigé fi ci gox bi daf ko benen gox ak i goxi gox ci bir Thiès yépp waaw ko défé ñëpp gis li ni xamni ki kat doomu Thiès la bëgg na Thiès Thiès ko ko ñor Thiès sago bu ko défé ñeneen ñi mën cee roy di def lu baax jërë ngeen jëf. waaw lii moom suñu xol sedd na ci lool lool lool parce que depuis fan yii yëpp ñu ngi ko doon kii parce que bu tawé day ta ba nga xamné ne boo bëggee jénn doo mën a jénn oto yi duñu ñu mën a jàll et tout vraiment les gens rencontraient plein de difficultés quoi ça vraiment c'est une action très très louable ñu ngi koy remercier bu baax. mais bon di ko encourager di ko remercier et comme lii ngeen ko waxee rôle maire yi la woon te maire yi defuñu ko pourquoi pas qu'il puisse postuler à un poste de maire xam naa comme fu mu toll nii c'est sur ses moyens propres qu'il fait un tel travail bon bu demee peut-être ba ñu dénk ko lengewu maire yi mu war a mën a am yeneen euh, comment dire moyen pour liggéey dana dana liggéey comme suñ président nu mu ko doon waxee Abdou Diouf bu kiñ kin naree neex bu baxee xeeñ eh. <laughs> voilà donc euh, je pense que ça c'est encourage encourageant quoi ah, waaw waaw soo fekk ñu ngi leen sant bu baax ñu gërëm asalaamaaleykum ba d'abord ñu ngi nuyu mbokk yëpp leen nuyu kër la turam si leen baalu wax leen baal ak bu rafet la parce que vraiment fii su ba taw nit nit sax duñ fa mën a wax ma la oto yi oto yi dañuy obligé di virer ci jaar buntu kër jàmbur ji te vraiment léegi moom vraiment acte bu rafet la ñu ngi koy sant di ko gërëm di ko ñaan yàlla yàlla yàlla kàttanal ko yàlla bu doon góor doole dooleem bu mën a def yenn ak suñu raw yi kon vraiment ñu ngi kontaan bu jërëjëf mbokk yi kon ñoo ko gisandoo mi ngi noonu mu nekkoon fii ci Ngent ak station mbokk yi xam nga jafe-jafe yu mel nii nag saa yu tawee rek Thiès da koy faral di am rawatina ñi dëkk Ngent ak caali waaye yaakaar naa ni yoon wi tey ku fi jaar jaar fi laataa muy taw ak bu tawee ba noppi di nga xam ni wax dëgg yàlla def lu baax am na solo torop Pape Doumbia ñu ngi koy ñaanal di ko remercier ci jëf ji nga xam def na ko ndax lii la yàlla di wax ci alxuraan ne boo mënee lu baax na ko def ndax ëllëg gi man maa moom fay gi te dinaa la ko fay kon lii bu la ko nit ñi fayul sax yàlla moo la koy fayal boppam kon ndokk ba doomu aadama amee gis-gis boobu ndokk ba doomu aadama amee xel mi gis li nga def mu rëy lool ñoo la ciy ñaanal tey li ma dégg fii dafa daw sama yaram ay kilifa yoo xam bëgg ñoo ci écran bi waaye dañuy ñaan ba seen xol tooy loolu nag yaakaar naa ni képp kuy dund rek bu la yàlla mayee teraanga war nga ko def fa nga xamante ni fa la sa ndey sonne fa la sa baay sonne yoon woowu ci la Pape Doumbia taxaw ba a nag mu woote mouvement Thiès sa kanam woote na dafa yomb waaye jëf moo jafe ba mu wootee mouvement Thiès sa kanam ba léegi mu ngi def mu ngi ci le terrain di xool li nga xam mooy jafe-jafe doomu aadama mu ci ànd ak ñoom te lii du dëkkandoo yi ñoo ko demandé dafa romb gis xam ne lii ñaaw na dugg taxi am problème mu am accès sax pour dem kon nag loolu yaakaar naa ni autorité ñoo ci waroon def lof def def seen loxo bu baax a baax ndax wax dëgg yàlla maire boo dem rek am na budget bu fekkee budget ba tamit réyul am na yoon wu mën a jaar ba am ay aide yoo xam ne nañ leen jàppale ñu mën a paafe wala ñu mën a def ay canalisation wala ñu defar loo xamante ne ni sax dëkkandoo yëg ni ñoom am na nañu maire waaye nag nekk cib dëkk defoo ca dara jéemoo ca lenn ba nga xamante ne dëkkandoo yaa ngay jooy ndox ma di taa yooyu di màtt xale si sibbiru di ñëw yaakaar naa ne loolu nag du loolu la ñu joxe dëkk bi kon ngalawaay képp kuñ jox dëkk bi dal bàyyi xel askan bi dal bàyyi xel doomu aadama yi lii nag buñ joxal autorité képp képp ko xam doomu réew mi nga te yàlla may la teraanga na nga xool ci Pape Doumbia ci jëf ji muy def ndax bu la yàlla mayee teraanga da nga war xool fa nga ne fa nga daan fowe te fii bokk na ci barab yi nga xamante ne ki def def ji tey daan na fi romb ay ngeer daan fi rëbbi lëg daan fi def lu ne tey bu ñu demee ba yàlla indi askan wi ñu dëkk fi ami jafe-jafe kon nag da ngeen ci xool bu baax a baax démb ñu mën a defar tey mbokk yi nag du ñu guddal loolu lool loolu moom reportage boo xam ne seen seppe sekk na ànd ceeg caméraman Moussa Mbaye ñu ngi jaajëfal nag Waly Waly Ngom di jàmbaar ndax machine bi ci ginnaaw moo koy dawal ba ko Pape da cee da koo defee ni nga xamante ni moom xol bu laab la ko defee xol bu sedd la ko defe moo tax ñaan gi Pape Doumbia am tey du ko ci ëppale ndax yaakaar naa ne dañoo wallu dañoo wallu dëkkandoo yi nga xam ñoo dëkk fii kon waali yow it sa jëf rëy na ñu ngi lay jaajëfal bu baax a baax gis nañ liggéey bi gis nañ taxawaay bi dëkk bi fépp foo xam ne am na jafe-jafe ci wàllu pavé yaa ngi ciy dugal ca loxo kon waali ngom yow it ñu ngi lay jaajëfal bu baax mbokk yi mouvement Thiès ca kanam daal ñàkk cee bopp wóoru man Seck Ndane maa ngi ci biir Moussa Mbaye jërëjëf merci beaucoup les Thiessois à tout à l'heure